di delluwaat di ñaax ñëpp mbir mi nag dina am loo xam ni borom kër gi dina ko ci war a def te bu ñu ko seetloo ci weer wi borom kër gi tuur mbalit mi muy borom kër gi moo koy def mbaa ku jigéen ki moo koy def dina tuur lu lu mat ñetti yoon ci weer wi mbaa ñeenti yoon ci weer wi te boo ko calculer saako bu ci nekk ni ñaa ngi fay ñaar fukki dërëm kon dinañ leen ñaax ni dina am loo xamante ni néew ak bari dinañ ko teg ci li nga xamante ni mooy borom kër gu nekk yor njël. waxuñu kër gu nekk dañu ne ku yor njël ku nekk dinañ am loo xam ni di ko fay par weer ñu ngi koy gam-gamlee si téeméer ak juróom fukk ak téeméeri dërëm te jàpp nañu ni mën nañoo xalaat nii buñ si toogee ba waxtaan na mu gën a yombee ci nit ñi noonu lañ koy def ñun la weer bi téeméer ngay fay si ñu génne la sa mbalit loolu ku ko fayul bu ñuy waxee dëgg te yàlla tax sanction moo war a tegu sa kaw génne la sa mbalit weer ñu ne téeméeri dërëm dong fay. comme mu ci mante doon war nga cee a taxaw dinañ jël ay disposition yu mat sëkk dañuy defar pour mu baax nag defar pour mu baax mënoo ko def te doo ay yëngal sa yaram defar mu baax mënoo ko defte te amoo sanction am na loo xamante ni dañu koy bay am nañu fii assainissement boo xam ne ba Basirou mbay moo nekk ci bopp bi ndox mi dañu ko daan tuur ci mbedd yi ñoom ñu ngi góor góorgóorlu bi ni fi ñëwee ak léegi assainissement bi mu ngi dox nit ñaa ngi tuur ci égo yi mu ngi dem ñu ngi def extension dem ba perron kon nit ñi dëkk bi ñoo ci war a jàpp mbir mu yokku dëkk bi ñoo ci war a jàpp fay li nga xam ni say nawle fay nañ ko say jigéen ñu bañ leen alamaan si tuur ndax ku tuuru ci mbedd tuuroo géej du am foo tuur kon li am solo mooy nga fay ba kenn du la am mën a wax dara nga jël nga nga fexe abonné ci lii nga xam ni moom la nit ñi def ñu ngi koy ñaax chef de quartier yi ñu gën cee waxtaan ak ñi nga xamante ni ñooy seen i dëkkandoo di ci ñaax xale yi di ci ñaax ñëpp que ñu taxaw ci dëkk bi ñu fexe dëkk bi yokk dëkk bi dox parce que bis ba nuy gis télévision yi ay dëkk di def loo xamante ni ak di wax loo xamante ni dàq ñu nu ko bu dee intellectuel am nañu ko su dee boroomi xam-xam am na nañu ko su dee mag ñu lislaam am nañu ko kon benn dëkk waratu la mën a dox bëgg noo dox kon loolu man dama ci insister dama ci insister te dama ci fas yéenee taxaw ba mu mat sëkk bépp doomu aadama boo xam lépp lu ñu teg si kayaar ngan da koy tegg dinañ ko jëflante yow loolu moom na leer ñëpp lu ñu neexal neexal nit ñi lu ñu ànd ànd ak nit ñi nit ñi du tagg di gërëm ku jàdd yoon ñu tagg si yoon yoonu commune bi lañ ne ko jàdd waxuñu yoonu Ndiass sama diggante ak doomu aadama loolu sama diggante moom la waaye li nga xam ne dañu ajal tekk ci commune bi pour nga xam ne mooy avancer commune bi mooy doxal commune bi bépp damaana bu ko tegg dañ ko jëflante yow kon asalaamaaleykum wa rahmatullah yàgg nañu am ko ci wàllu hmm. hmm. euh, kon asalaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di bég tey ci population Kayar di am si ñoom mbégte ci teewaay bi ñu teew si jot matériel bi nga xamante ni suñu partenaire allemand bi Olivier moo ñu ko baaxe mbégte mi yegg na tey foo xam ni wax dëgg yàlla ak yonte bi mënuñu ko xalaat wante li ci am solo mooy dafa fekk ñun ñu xalaat ceet nekk si di ci def ci suñu kemtalaay kartan projet bi ñëw dollinu matériel pour ñu gën a améliorer li nga xamante ni ci la ñu nekkoon ci wàllu assainissement ñoom ci mbégte lool wante yàlla defi tamit loolu nga xamante ni ñëw na à travers suma rakk la boo xamante ni def na Allemagne deux fois mu am fa benn xaritam comme ni ma waxee woon sànq muy Olivier léegi. kooku la àndal ñu taxawal projet bi bi ñu taxawalee projet bi tam population bi ak accueillir na projet bi ci mbégte mu rëy rëy rëy tey te ñu fas yéene jàpp ba projet bi moom li mu ñu indil ñun population bi ñu fexe see dolli loo xamante ni dina jéem a ëpp mbaa mu dab ko bu ko defee projet bi gën a mën a taxaw projet bi nag tey yàlla dafa def mu fekkoon fii ay projet yu ba ñaari projet yoo xam ne jotoon na fi am waaye projet yooyu sunu borom def antuwul waaye bii nag yàlla indiwaat ko ñun ci suñu kay te it yàlla def may nu déggoo ak population bi ba lu ñu yëkkati ñoom ñu ànd si moo tax ñu jàpp ni incha allahu projet bi daana yegg fi nga xam ni fi la ñu bëgg mu yegg fi ci setal Kayar kon loolu ñoo ngi leen koy xamal di leen ko yëgal leneen li ñu si dolli nag mooy yàlla dafa def ñun. fii si Kayar ñu am fii mbay am fi napp wax naa ko sànq am fi commerçant yoo xamante ni ay liggéeykat lañu ñooñu dañu bëgguñu jàpp ci projet bi ba projet bi gën a taxaw nii nga xam ne fi lañ fi la tool loolu tam su ko yàlla dogalee ay ASC yi nga xamante ni bu ñu dee wax ASC du football kese ñaaxale nañu leen ci seeni président pour que ñu gën a jàpp ci li nga xam ne mooy assainissement bi ndax nag cet mënoo jaamu yàlla te setuloo kon loolu lañu am xalaat ci projet bi di ñaan yàlla mi jàpp mu jàppal ñu ci projet bi waaye itam ñu ngi ci euh, wax euh, le président de la république ak gouvernement am ñu jàpp ci projet bi ba projet bi taxaw ni nga xam ni noonu la ko son excellence bëggee ci wàllu environnement ñu aar ko kon ñun loolu lañu ci ñaax que ministre de l'environnement tey jii rafetoon na jekkoon na teewaayam tey mbaa ndawam mais dañuy jàpp ni doomu aadama bu nekk mën nga am yéene te doo am jotale foofu lañ ko teg moo tax ñun ñu ni ñun maire bi bu ñu fi teewee teewaalal nañu fi ñooñu ñëpp waaye bëgg nañu ci li nga xam ni moom la état bi di joxe jëm ci wàllu environnement jëm ci assainissement ñu gestu ci kayaar comme commune yëpp ndax Kaayarit commune la boo xamante ni bëriwul jafe-jafe ci askan wi kon war nañu ko mën a jàppale te ku ko war a jàppale mooy état bi. lan mooy problème mu Kayar ci wàllu ah, problème mu mooy euh, problème dëgg-dëgg mooy xam nga ñun kayaar fii ñoo ngi ñaaxaat ñu ngi waxaat itam ci président que ñun pour ñu génne suñu mbalit dafa jafe ndax yàlla def kayaar ku ko xam mbaa nga dégg Kayar xam nga ni beeñ la. te pour génn mbalit mi ci biir metti na trop jafe na mbaam yi ñu utiliser nii duñu am temps bu yàgg dañuy décédé parce que mbalit mi dafa diis suuf fu ñuy jaar dafa diis kon bu ñu mënoon a am ci état bi mbaa beneen jëmm joo xam ne am na man-manam ak yéeneem ci tracteur benn mbaa ñaari tracteur yoo xam dina mën a génne mbalit mi ci tali bi su ko defee ñu mën ko jël léegi loolu jàpp naa ni bu ñu ko amee tam ci gouvernement bi dina baax lool ndax loolu mooy suñu véritable problème te itam euh, fi nga xam ne mooy dépôt d'ordure bi ñun aussi commencé nañ ko aménager di projet bi di ñëw pour defaraat ko ba nga xam ni dañuy incinérer lépp loo xam ni mbalit